salaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin makin wa ala wa sahbihi wa xayri xadimihi wa man tabihum bi ihsani ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu di jokk sunu nuyu ak sunu siyaar ci nuyooy bokk yi ñu jiitu di ko tàmbalee ci kilifa yi jiite jataay bii di sunuy sang di sunuy kilifa njabootu Cheikh na Ahmadul Khadim ak njabootu sunuy dara Asan Njaay gi ñu fi fekk ak mboolem mbokki taalibe yi fu fay mën mu mel ne ni ko bokk yi sàkkoo woon bu ñu dajee daje bu mel nii ci kër Serigne Touba am luñ te jërale sëriñ Daaru Asan radiyallaahu anhuma du mën a ñàkk ay kàddu yu ñu sànni ci diggante sëriñ Daaru ak sëriñ Touba na ci sëriñ Daaru doon doxee lii sama yitte man sëriñ Daaru mooy ngërëmal yàlla tey jii ñëw naa ceew sëriñ Touba di sàkku ngërëmal yàlla mel ne li ñuy wax nit lépp loo xam ne si ak bëggam la day feeñ ci aw làmmiñam boo demee Cheikh Sall Karim ba muy leeral ak taalibe mooy lan dem na ba wax ne nit ki lépp lu mu bëgg te mu dëggu ci moom day jeexital ci ab xolam waaye day feeñ ci aw làmmiñ waaye ay cëram itam day jëf-jëf ju koy may loolee fa man saddaqa fi ubi shay'i asarahu xalal xayri fa yasxaru fi lisaan wa yasiru bil jawaare bil xamali bi ma ko daa wax loolu sam sëñ Dóoru dal wax ci sëñ Tuubaa ca xes gi ne ko gane gii ma la gane si tey de sàkkuma nga di ma defal ay bernde mel ni sëñ Njóobeen bi sama gannaaw bernde yooyu waaye xiraa yaa siqatee ridwaanuhu abadan bi xëyri soxtin wataw bi xel waa sama sama bernde man sëñ Dóoru bu ma wut yow de moo di ngërëmal yàlla képp loo xam ne si ab sànja wala ak mer doomu ca topp loolee ay waxam ak jëfam ay yëngoom ay dalam lépp mu def ko ca ba àgg ci Sëriñ Tuubaa waxal ko boppam ne ko faalam bi am ne raadin xanka muttalibun an jaa akal fawsu min mawlaaka xamal yow sëñ Daaru Asan ne man Xaadimu Rasuul gërëm naa la ngërëm li nga doon sàkk ci man am nga ko waaye yëmu ci maa ngi lay sàkkul anja akal fawsu fawsu nga xam ne si moom la gaay baax yëpp doon wut maa ngi la koy sàkkul ci sa borom ak dëgër ak sax boo xam ne si dara du ci mujj waaye bu mel ne lépp lu des wax itam la gën a wér ca wax ja mooy waxe doomi Sëriñ Tuubaa te kenn ci ay njabootam Cheikh Mamadou Bachir wax na ci melenul baaxel xadim seede boo xam ne moo gën a see wër seede Moustapha Ndiaye moo gën a wër seede keneen ba nga xamante si wax na ci gaa yu baax yooyee amoon na seen Tuubaa ci pas-pas ci jaamu yàlla ci liggéey joxe seen ñaq joxe seen bakkan joxe seen njaboot wax na ci ceeñu baree baree bari sante ko yàlla ci bi mbooloo mu mel noonu bare ci defaru sëriñ Touba da ca daa teg ne lii nag fàttali na ma la ma doomi sëñ Daaru Asan waxoon ne seen bàyyi daana leen digal ne na ngeen farlu ci taxawal farata yi ak lépp lu ngeen man ci naafila yi ndax man de diiru ba ma jokkoo ci sëriñ bi aju ci moom jox ko saa ba tey musuma digal lan loo xam ne lu may indil njariñul àddina la la may digal daal mooy lu may jariñ ci sama digg sama borom ca foofee nu jëm waaye lenn ndigal loo xam ne sëñ Tuubaa nee na euh, sëñ def nee sëñ Tuubaa daal ko ci moom njëriñul adduna mustaam lépp lu mu koy digal lu koy jëriñ ci ndigal digal digal borom la woon loolu sëñ def saxante rek sëñ Basiru teg ca ne sëñ Basiru teg ca ne sëñ Asan yaay rek bokk na ci min baqiti saalihiina li fi desoon ci gaa yu baax yi sëñ Dëru ci la bokkoon ñu xool baatu saalihiina nag mooy lan bu ñu delloo ci alxuraan ñu baree baree bare ci yonent yi alayhi salaatu wasalaam ngi koy ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba ci euh, Seydina Ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne si moom la suñu borom digaloon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko itam min Ibrahima xanifan dem na bay wax ne rabbi habli hukman waj'alni mina saalihiina suñu borom dem ba waxaat ne ni nga xam ne. Euh, maanaam ba xat katab ci sa boor bi maam zikr analar da yenn si waa ibaadi saalixoon bindoon nañ ci sa boor la jiitu woon alxuraan ne suuf sii di addina lépp lu am njëriñ sama jaam ñoo baax ñoo gi baax ñoo ñi saalixoon yooyu ñoom laa koy donnale ñoom seen loxo laa koy teg saalixi na kon doon loo xam ne lu jafe-jafe lu sore sore la ndax bari na fu ko suñ borom wax ci alxuraan ay ay kilifa nit ñu baax a baax ay yonent doon ñaan suñ borom mu boole leen ci saalihiin kon bu sëñ Basiir waxee ne sëñ Asan ci saalihiin bokk mel ne kon saalihiin lu sori la waaye dajaa teg ay mandarga wala sart yay tax nga bokk ci saalihiin yooyee wala mu koy dëgëral mu ne ku daa woor la ku daa taxaw naafila la doon doonoon koo xam ne dawul toqe ci alxuraan waxtu ne alxuraan a ngi ci yow lam yam ku bari woon ab saxaloon ak ak beru la waaye ku bari woon ay ay ay ay taalibe la yow ay ay ñoo xam ne ay murid lañ yu dëgëral ci moom mu ne bokk na ñu njëkkoon a topp Sëñ Tuubaa dund naa moom lu mat ñeent fukki at daal ko nee na am na bis Maam Moor Jaara doon xam ne kenn lawul si dërum ab xaritam la woon wëlëreem la woon Maam Jaara moom yi nga xam ne ku bari woon jublu ne ku bari woon jàngal bokk na ci gannaay subhanallah gawari guddi yi yi gawar yi nga xam ne si bu guddee ñoom guddi la ñuy war di ko dem seen borom nee na Maamoor Jaara kenn la woon ci gawar guddi yooyu nee na wér dam moom Maamoor Jaara téeméer rakkaa la woon guddi gu daa ko jox suñu borom doon def lu muy def mu ne mu muy mbokk moo xam ne mbokk na ci sëñ Daaru ci ak eh, yoonu sëñ sëñ Tuubaa wi mbokk waaye mbokkam la itam ci dogu gi mu dogu jëm ci yàlla mu bind ko lettre ab bis ne ko dama laa namm lool te giñ laa gis bëggoon laa gis nee mu telloo ndaw la lettre ba waaye daa dindi ab bi jaaw ci boppam ne ko xamal ko ne gan gii moo ma gane si moo ma tënk ci lépp loo xam ne lu ma bëggoon a def la ci mbirum addina ba tax na fi mu ne daanaka mënatuma di dem ak a noonu waaye ci biir loolu yi sëñ dëru ñu gis ne defar gi nga xam ne sëñ Tuubaa defaroon na leen ko defar seeni jikko def ci ñoom lewet def ci ñoom mën a mën a mën a mën a joxe alal jox def ñu mën a jox seen daraja loola tax na waxtu nga xamee ne dem na ba sëriñ bi jox ko ndigalul dellu ca bokk yi itam ni nga xam ne si moo doon aaday saa yu mbir feeñee ña fa nekkoon te xamuñu dëgg-dëgg xamuñu dëgg-dëgg mbir ma luñ ko nangu noonu nga xam ne sëriñ bi lañ ko doon sonale moom it ña daan ànd ak ñoom noonu lañ leen doon sonale ba mu demee ba dellu fu mu jóge woon moo waral mbay moom fa jëkk a bay dañ koo yàq digal koo xam ne si ab kàccoor la digal ko mu yàq ko ba noppi ñu jox ko xalaat yi bu la waxee dara rek dalal ci kawam waaye fekk na boobu sëñ bi defar na leen ba defar na ci ñoom jikko yoo xam ne ku la mënoon di wax lu lu loo xam ne si lu aju mën nga koo bàyyi ngir yàlla ba loo amee nekk fa di xeex ak moom ma nga xuloo waaye dafa dellusiwaat ci sëriñ bi wax ko mbir ma nam demee mu jox ko ndigalul dem sañ ci Daaru Salaam njàmbur jox ko ndigalul boo demee na nga wéeru ci perom am ku ko boo jàngee ba na fa sañ tudde ko Daaru Salaam te na fekk na boobu nawet bi sori na waaye wax ci ëpp ci boobee ci euh, sukkandiku ba jàll bi loolu amee loolee ko sëriñ bu digaloon mu sax ci dàkk sax ci jaamu yàlla sax ci liggéey waaye di defaraat ay nit ba la sëriñ Tuubaa def ci moom mu di ko def ci ñoom ba suñ borom tabaaraka wa taala def na mbooloo mu baree bari seenu defaru suñ borom jaarale ko ci loxo yi seen dëru ci ndigalul sëriñ Tuubaa mu mel ne loolu bi amee ñii mu bokkaloon ànd ñoom ci yoon wi ñi di mbokk jullit di mbokk taalibe amoon naa ñoom ak jaxasoo ndax ni ma sëñ waxee léegi rek ñoom gaa baax yooyu dox jëm ci yàlla dañuy am ñoo xam ne ñoo doon seen i àndandoo wa rafqatun wa hiya ixwaanuhum himamun mahal wafaa bi sidqin fil uxuwaati jooju da ko doxaloon wér wér te loolu bokk na ci la ca di tegtal mboolem ñoom ñoom dajaloon sëñ Tuubaa dafa amoon ak ñoom ak jokkoo am na ñoom ak jaxasoo bokk na ci sëriñ sëriñ Fallou Boussa mii way juróom sëñ Assane sëñ Darou Assane la ko sëñ Mbacke Boussa tuddee sëñ Mba sëñ Mbaye mais sama ginnaaw bi sëñ Mbacke Fat Jang way juróom sëñ Mbacke Boussa la ko sëñ Darou Assane tuddee loola it doonoon loo xam ne doxoon na ci digganteem ak mboolam ñu baree baree bari ci yoon wi niki sëñ Mamour Diarra ñu wax léegi sëñ Balla Coro ak ñeneen ñu baree bari ñoo xam ne ci yoon wi lañ bokkoon doonoon ay kàngam sëñ Moussa Ba Diop Sam nga xam ne ñoo bokkoon benn lal ak ñoom ñëpp ay ay diggante bu rafet ànd ngir sëñ Tuubaa ànd ngir lislaam doxoon seen diggante ak ñoom daf di seen diggante bu baax a baax loolee suñu borom dimbali ko ba mboolem njabootam gi mu fi bàyyi woon ñu doon dox tànkam yooyee doon ay jaamu yàlla yu nangoo jaamu yàlla yu rafetal seen seen seen seen seen euh, jaamu waaye doon taalibe yoo xam ne yu rafetal seen taalibe ba loola mooy dox ba ci jamono ji ñu toll dana sa gën jëm kanam bu baax kon mu mel ne ah, waxtu bi xat na te liñ sàkk woon liñ amul yéene yi leeral ko lépp wax dëgg suñ kattan xaw na cee wax tuuti ñu ngi jégalu baax a baax rek di dellu siyaarawaat sëñ si di sant bokk taalibe ah, di ñaan rek ñu defal lu doon wax ndimbal lépp loo xam ne si ay rëcc rëcc la ci waxtaan wi tam ñu xam ne la doon suñu yéene moo doon rek leeral doxalin seen dëru ba man ak ñi mel ne man nu mën xam fu ñuy teg suñuy tànk xam la dox suñu digganteeg sëriñ bi xam la dox suñu digganteeg suñu borom xam la dox suñuy dox ba mën a jaar seen tànk ba saytu leen dañ fi bàyyi ba buñ ko delloo ci seen loxo yóbbaale seen ngërëm noonu ngi sant tey gërëm tey jéggaluwaat baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw ba nu santee suñu borom subhaanahu noo ngi julli ci yonent bi Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu yaakaar tey ak ëllëg xaadimul Mustafa di ñaan sëñ Sidi Moxtaar suñu borom yàggal ko fi ba naal yi mun naa daal Sëriñ Tuubaa ay gële ay gëlewaale yi ñoo ko jiitu woon boole ci naal yi boppam ñu ànd ko ak moom te dëppoo ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa yàlla bàyyil ko fi bàyyi fi njabootu Sëriñ Tuubaa gi ba naal yi fi sëriñ bàyyi bii bàyyi woon lépp jaar ci suñu loxo mu egg di sant bu baax jataay bi di ko gërëm di ñaan suñu borom gërëm ko di jël kàddu ci turu Serigne Cheikh Ahmad Badawi moom Cheikh Mahamadou Fadl nga xam ne moo jiiteelu kuréel kuréel gii nga xam ne mooy Rawdu Rayaahiin ak ñi mu ko àndal ñépp euh, te nekk ci liggéey bu am solo boo xam ne dafa mel na tey dañoo na ci toolu Serigne tubaab yi fépp foo xam ne euh, mat naa ji danañ ko ruuj ba mu set ñu ji jiw woo xam ne gàncax ga lépp naataange indi fu am ñaxit ñu bay ko ba mu set wecc ngir ku bëgg liggéey Sëriñ Tuubaa man fàttoo kon alhamdulilah seen liggéey ci wàllu xam-xam la jëm ni ko sëriñ Xaadim waxe léegi ñu koy sant bu baax sant sëriñ Mbàkke Abdourahman mi ngi ànd ak ñoom ak Serigne Cheikh Abdou Wadoud ak Serigne Fallou Bousso bari nañu di borom yi xam-xam yoo xam ne bu ngeen seetloo at yi yëpp euh, seen xam-xam la baaxee doomu aadama yi ba boo gisee màggal gi bu njëkk danga daan ñëw doo fi mën a dégg loo mën a nekk nettali feneen wala foo mën a duyee wala loo mën a jëriñoo léegi boo leen toppee. da nga duy loo xam ne dana la mën a yor ren ba déwén nga ñëw duyaat ci Serigne Touba te loolu lu am solo la lu ci bare bari ci jafe-jafey daayira moo ji man li may faral di wax ñaari murit wala ñetti murit bu ñu béjjoo am na ci ku xamul Serigne Touba am na ci ku ko xamul kon ñoom dañuy xam ne Serigne Touba kon Serigne Xaadim li nga wax ci xoqa bi ko sëriñ bi wax wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun maa alwafaai bi sidqin fi l uxuwaati yooyu yépp dana ji am lu mu ci wax rekk am na waaye sidqu bi laa defe ne moo xawe mooy xaw a des ba tax bu yàqu loolu yàqu ndax ki nga xam ne alal la bëgg ak daraja loolu dadul man di bu fekkee dëgg la ci nit ki dëgg googu day weddi dëggug suñu borom gi tabaraka wa taala tabaraka wa taala da koy weddi ndax alal ja rek mooy doon dëgg ci moom wala daraja rek mooy doon dëgg ci moom kon jàng Sëriñ Tuubaa ba xam ko dafa jot bu mag sëkk euh, xam gi dafa war a jiitu dafa war a jiitu ñu bari bañuñu waaye dañoo xamul kon daayira bu mel ni Rawdu Rayaahiin dafa mat a gëstu di ko topp di leen jàppale ca xam ne Serigne Touba rek leen yëkkati te njàngaleem Serigne Touba rek leen yëkkati te Serigne Touba ku ko xam yi ñuy wax ci lu yàq lenn te xam ko bu wér wér wér te gëm ko te jëf jëfe li muy wax lenn looy def ci lu safaan ba doo am mukk ci àddina kon ñoom tool bi ñuy bay bu fekkee dem nañ ba mel ni ñax amatu ci rekk yëf yi dana jag te ñépp a ci war a bay seen waar ñun day defe naa ne am na jumtukaay bu ñu yor kenn ku ne gis na ne diggante 9 ci suba ba 10 heures 9 heures ba 10 heures dañ ko tuddee waaru waar wi ci toolu Serigne Touba te defe naa ne ñoom lañ ko jagleel kon ku amul jotu mën a dem ci ñoom boo dee déglu loolu itam da dégg seen wax te loolu lu yomb la kon alhamdulilah Euh, loolu ñu bàyyi ci xel bu baax te jàppale leen euh, waa kër sëñ Daaru Asan nag bu ñu ko tuddee bis bi sëriñ euh, bi ci boppam sëñ Ahmed Badawi ak ñi mu àndal wane nañ ci xereñ gu mat sëkk ak pasef bu mat sëkk ndax bërki bu ñu ngi demoon ci sëriñ Afio Mbakke te wane na foofu beneen kiimaanu sëriñ Touba wane na sëriñ Touba moom ki nga xam ne bëgg mel na ni mu bëgg dana la yemale ak ki nga xam ne mel na ni mu bëgg te mu bokk ak moom lépp muy sëriñ Afia kee daf ko daan jiitaloo muy julli kii itam daana ko def fii ci bayti bu nekkee ci ixtikaafal leen wala mu di ko jiitaloo mu di ko jiite muy julli kon wala na foofu ne kii nga xam ne jege na ko lool mu bokk ak moom lépp képp ku mel ne moom ci jikko yi itam jàppende na la ne ko alhamdulilahi rabbil lu am solo la kon kenn ku ne gis ne Serigne Darou Assane Pastef bi mu àndal euh, dafa jàngale sëriñ jàngale taalibe te loolu yaakaar naa ne euh, ku mu nekk ci yow ak yi dana la sori koo jëkk a xool fii rek xool ko ci kër yi day sol lu rafet rafet rafet civilisé lool nite ba pare takkook laxasaay ci ginnaaw laxasaay googu màndarga la symbole la lu am solo la am na foo xam ne boo ko takkee sole noonu gis ñuy def safaan ba yow doo ko sañ ndax ku ko ku la xool rek gis ci yow Sëriñ Tuuba kon alhamdulilah loolu Euh, la sëriñ bi waxoon ne naa leen ko jottali euh, toogaay bi dafa yàgg li ñu war a wax bari na waaye sëriñ Ahmad Badawi mi ngi leen di sant bu baax ak waa Rawdu Rayaahin di ñaan yàlla ñii ngeen mel nekki royukaay ba tax sax jàng yi ni nit ñuy jàmbat ci bari géej yu demee noonu xëy na baax na wa umri ilal jinaan yaidu te dëkk bi bari na fi ñu néew doole ci ci loolu la ñuy dund waaye ñi ngeen boolee seen bopp di mbooloo mu bare lool ba pare yam ci genn kàddu itam alhamdulilah yaakaar naa ne loolu itam dana firi wa rufxatun wa hiya ixwaanu ndawum himamun mahal wafaay bi seen fi uxuwaat kon loolu alhamdulilah euh, xayrul euh, ma euh, xayrul maqaal xayrul maqaal ma sadaqahul fiaal ma sadaqahul fiaal loolu lu am solo la xayrul maqaal ma sadaqahul fiaal kon loolu alhamdulilah ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp di jël nuyoo bi di nga toj ci loxo sëriñ Ahmadou Badami ak sëriñ Cheikh Aliou sëriñ Cheikh Mouhamadou ak Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma ak kilifa yi nga xam ne ñoom laa fi fekk yëpp te mën nañoo wax de kaddu gi nekk seen kaddu ndax bu sëriñ Cheikh Aliou waxee ci turu euh, Rawdu loolu mooy sëriñ Sidi Mokhtar wax na sëriñ Bassirou tam wax na. ñu ñëw nag teew fi tey ji teewal fi Cheikh Sidi Moukhtar ngir jéego yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy jéggi jëmee ko ci cant yi nga xam ne sëriñ bi da koo santaane muy jéego yoo xam ne dafay wane rek cofeel dafay wane pas-pas itam loolu moo waral fu ko fay defee sëriñ bi dafay santaane ñu ñëw fa pour yëgal ñooña ni lii ñu nekk kat ndigal la te sëñ bi yëg na ko te itam sunu teewaay moo fi ab ab teewaayam ku mu fa yabal rek sab teewaay moo fay ab teewaayam kon ñuy nuyu njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay yëpp di ci jiital ki nga xam ne moo mag te nekk ca bopp ba di jël nuyoo mbooloo mi góor ak jigéen mag ndaw ak taalibe bi yëpp di ko teg ci loxoom di nuyu boroom xam-xam yi nga xam ne itam fekk nañu leen ci taabal ji te fekk li ma ta wax lépp tamit ñu ñu ñu wax ko xanaa suñu kaddu kaddu sëriñ bi cant lay doon ak ñaan ak yëgal leen ni li ngeen li ngeen nekk kat yëg na ko te jàpp na ko te xam na ko yëgal leen ni yëg na seen pas-pas yëgal leen ni eh, yëg na seenu jàppoo yëgal leen ni yëg yëg na seenu yëg sëñ Tuubaa yëgal leen ni itam tànk ya nga xam ne seen maam ju tedd ja di sëñ Daaru Asan Njaay nga xam ne yàlla defaloon na ko lépp ba noppi mu ànd ak sëriñ Tuubaa ñooñe ñooñe ñooñe ñëpp tamit nag da aw yoon la ñu wane yoon wa ñu wane mooy yàlla moom may na Serigne Touba loo xam ne mosu koo may kenn te dootu ko may kenn ndax damay wax ne ku sëñ Daaru Assane Ndiaye ne ci sa gannaaw sëñ Ndaam Abdourahmane Lo ne ci sa gannaaw sëñ Mbacke Bousso ne ci sa gannaaw sëñ sëñ sëñ Ahmad dem sëñ mu dem nekk ci sa gannaaw kooku yaakaar naa ne yàlla suñu borom may na ko loo xam ne kenn na ko kuy dox ci biir réew mii ku ko yàlla may amul ndax ñooñu kenn ku ci nekk da dajal këpp fa nga nekkoon da ngaa dajal këpp sa biir bokk te teewul nga bàyyi la nga jàppoon lépp topp sëñ bi loolu dafay joxe firnde ne rek ni Sëriñ tubaab moomu la yàlla may lu lu mu mayut kenn Sëriñ tubaab moomu itam la yàlla dul dogal kenn di ko xam ndax kenn ku nekk wet ga nga ca féete rek wet googu man mën nañoo wax ni moom ngay xam ndax géej li muy rëy rëy am picc bu naawoon di ca di ca di ca dal fa ay tànkam di tege képp la gis ca géej képp koo seen muy dem nag daanaka noonu la mel ci Serigne Touba sëriñ képp ko ci noonu itam lu mu bëgg ci Serigne Touba wala mu di ko seet wala mu di ko dox wala mu di ko wut te amu ko na xoolaat boppam te xam na ci moom la. Serigne Touba moom géej la boo ci dugalee baaraam baaraam bi tooy nga dugal ci sa tànk sa tànk tooy nga dugal ci sa bopp sa bopp tooy nga dugal ci lépp lépp tooy noo joxee sa bopp Serigne Touba rek Serigne Touba noonu lay defaree tey ak ëllëg mm-hmm. te nee lépp a ngi fi nag koo xam ne ak ndomb dala fi indi boo ñëwee di jot. koo xam ne euh, pas-pas la fi indi li ne ci pas-pas lépp da ko am ku fi ëllëg indi danga ko am ku fi alal indi di ko am ku fi ab indi di ko am ku fi aw di nga ko am ndax yàlla may na ko lépp te doyewu ko dara da koy joxe rek kon nag nan kon nag mel na ne jotaay bii ku fi ñëw da nga xam ne jotaayu pas-pas la te li lal itam mooy mooy sant ndax Sëriñ Tuubaa bu ne ñu sant la Euh, yàlla sunu borom sa yàlla sunu borom mi nga xam ne moo ko moo ko may li mu ko may sant la ko sallallahu alayhi wa sallam loolu te teg ko ci alxuraan teg ko ci sunna la wax waxuñu cant goo xam ne day ànd ak kenn xamul lu doon cant ga wax kay mooy cant goo xam ne day tegu ci alxuraan tegu ci sunna tegu ci benn te loolu itam ñi nga xam dañoo jóg jëm si ci yéen yéen yéen a ko war a xam bu baax raxas seeni i dab set bëcc fas yéene comme ni ko sëñ Cheikh waxee léegi fas yéene ñay ñëw ngeen jaamu yàlla ci ñoom santal sant santal sant santal la yàlla Serigne Touba ci ñoom ñi nga xam ni ñooy ñëw itam ñu fas bu buñ ndikkee yéen ñi ñi toogoon dëkk ak Serigne Touba xaar gan ñi dalal leen fekk si leen di ànd ak ñoom ba jóge fi ñoom itam ñu fas yéene le Serigne Touba ci seen jëmm yooyu jëmm ju nekk bu xoolee moroom ci wet googu rek yaakaar naa ne li Serigne tubaa bëgg dana ko am te Serigne Touba moom kenn ku nekk li lay jox firnde ne ci alxuraan lay lay lay dox ci sunna lay dox mooy euh, yàlla moo wax ne bu ngeen santee ma dool leen waaye nag ku ma sant ku ma jox ci santoo da ngaa weddi te ku weddi itam dinaa la bugal kon loolu dafa lay jox firnde ci ni Sëriñ Tuubaa moom nit ku dégg alxuraan la te di ko doxee kon euh, wax ji daal mu gudd mu gàtt du génn cant goo xam ne sëriñ bi sant na ko daayira Rawdu Rayaahiin ci liggéey bu rafet bii nga xam ne ñu ngi koy def ndax doomi soxna ci dëgg dëgg dëgg dëgg loo ko mën a jox mu lekk ko te te joxoo ko xam-xam bu ko lekkee itam bu reesee reesin wa neex na mu war waaye doomi soxna ku ko jox xam bu ko lekkee dana rees mu mel ni pël bu naan meew buy të balaa tëdd mu rees doomi soxna it noonu la mel kenn ku nekk dafa am jagle loo xam ne suñu borom mooy li mu la séddee te ku ñëw ci jitaay bii rek loolu da ko xam ndax xam-xam sëñ Daaru Asan xam-xam bu mat sëkk euh, wilaaya bu mat sëkk tab gu mat sëkk ngor gu mat sëkk ak pas-pas bu mat sëkk bu ànd ko ak ak mat sëkk bu pas-pas ñun de fekkewuñ ko waaye li ñuy wax ci moom ñu di ko dégg ah, mooy lii nu nett li nii ba te ñoom ñoom ñoom ñooñu ñëpp tamit nag kenn ku mu doon ci ñoom euh, nga ko tàggooy tàmbali Serigne Touba wax ñu dégg def nañu gis bind na ñu bàyyi. ña nga xam ne dañoo ñëw gannaawam fekkuñu ko fi fekk nga mu defar fi ñu mel ni borom penc mii ñoo xam ne wax nañ ñu dégg wala bind nañ bàyyi fi wala ñu bàyyi fi ak njaboot njaboot ga itam di di def loolu. te wax naa ko démb ci Mbàkke Bawol dama ne Serigne Touba képp la yàlla may sancub dëkk mu tëggul ñaar téeméeri mu toll nii mu toll. Serigne Touba képp a ko am ci àdduna amul doo tudd yonent doo tudd kenn koo mën a tudd. koo tudd ci dëkkub jàmbur la dëkk sëñ Tuubaa rek dëkk foo xam bu ko neexee yëkkatee loxoom ne ginnaaw yàlla maa ko moom te su yàlla suñu borom moo ko fay waaw kon nag loolu doy na sëkk ku yàlla dimbali ba nga ba nga ba nga ba nga am loolu loolu doy na sëkk sant yàlla kon Cheikh Sidi Mokhtar mu ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di ñaanal di leen xamal ni ba mu fi toogee di Serigne Touba ba nëgëni liggéeyub Serigne Touba bi kenn mënu leen ci. nañ ko ñàkkoon a mane sëñ Daaru Assane Ndiaye ci xam-xam ci jàng ci jàngale ci jëf ci dox ci wax ci defaral sëñ bi noonee ngeen ca mel ba tey jii kenn mënu leen ci te ñun ñoo ngi fi sëriñ bi la fa xew noo ngi koy gis te waa say na illa bi ma alim na ñun bu ñu wax loo xam ne bu ñu seede loo xam ne xamuñu ko kon sëriñ baa ngi leen di gërëm bu baax sëriñ baa ngi leen di sant bu baax ndax ku gis eh, eh, eh, ni ko ni ko sëñ Cheikh waxee léegi toogaay bi ni mu yàggee ak fii maanaam ni mu làqoo ak ak ak yar bi nga fi fekk ak teggin yi nga fiy fekk ci ñoo xam ne tey jii euh, bu fekkoon bu bu bu bu bu fekkoon tey ci ni ma ni ma mën a misaale pour ñu gaaw koo dégg ñii fi nekk di njabootu seen Daaru Assane Ndiaye ku ku fiy feesal ndab ba jàpp ne yow rek sa sa ndab fees ba ngay tëb di dal boo gisoon seeni dab danga nga xeeb ndab la nga te te boo ñëwee fekk leen ci ab yar fekk leen ci ay teggin boo ñëwee fekk leen ñu yar fekk leen ci teggin fekk leen ci pas-pas fekk leen ci nangoo liggéey yàgg nañ ci dëkk bi de du wax sax yàgg nañ ci dëkk bi ndax am na ñu nu fi jiitu waaye nangam ji dañu ko wax wërta a wareesu koo wax nangam ji des koo def su koo def nangam ji des koo wax waree des koo jëf su koo jëf tam jëm ci loo xam ne lii du lu neex Sëriñ tubaab man de dégg ko ci pénc mi xay na nag bu amee man dégguma ko te defe naa bu amoon dinaa ko dégg kon nag kon nag kon nag loolu dafa doy sëkk kon ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di jeexale sama wax rek di sant borom xam-xam yii nga xam ne maanaam mën nañoo wax ne euh, ab teen boo ko bënnee lu teen ba neex neex lu mu jige jige bu amut ko cay root du nga xam ndox ma neex naa am dé waaw euh, li ñuy li Sëriñ Tuubaa bind bàyyi fi ak li nga xam ne li nga xam ne ñi mel ni moom itam dénk na leen ko ñu bind ko bàyyi fi te ñoom ñii eh, yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne ñoom ñooy ñoo ñoom ñii ñooy wutaatu yonente bi ci kaw suuf kon Sëriñ tubaab bu ci amee ñii mu ci am te duñu sonn duñ tay guddi ak bëccëg suba ak ngoon ñu ngi ci lii ñu ngi ci rajo yi ñu ngi ci lii lépp te loolu lépp jubluwuñ ci dara lu dul wane liggéeyub Sëriñ tubaab ndax média ci boppam dafa xew léegi dafa xew ci lépp loo bëgg xam rek dangay toog fi nga toog daal di koy xam ñu mel ni ñoom ñii nag bu ñu koy xam di ko teg ci ay reegal di ko teg ci ci ci ci ci fa mu war a tege yépp kenn du du xeeb yoon wi wala ngay xeeb waxi yoon wi di ko di di di di di ko jaare ci ñoom kon nag loolu doy na sëkk sant yàlla ndax sëñ Tuubaa moom yàlla da koo may lépp dara lu ko lu ko yàlla dencal amul yàlla may na ko lépp lu ñu gis ak lu ñu gisul la ñu wax lépp ku ànd ak sëñ Tuubaa lépp loo xam ne am nga ko fii xamal ne loolu bu fekkoon da ngay bëgg a yanu paan ab téeñ dong la la ngay am alaaxira ko raw fuuf asalaamaaleykum wa rahmatulah. iyaaka nasta'iin ihdina siraata al-mustaqiim siraata allaziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad daalliin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تمح لنا إسرا كما عملنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافر وافتح لنا كل باب كنت فاتحه بساله من الخيرات يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا قرنا وحبنا رشدا وتوفيق يا الله رقاه وحاب يا رزاق يا مالكي افتوه لي وارزقني بكلانا والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقتدي حواجك للمسلم السلام عليكم ورحمه الله